Moustapha ak sëñ Modou Abdou Khadir sëñ Modou Moussa Abdoulaye mi door ak ñu daje fi ñun ñëpp pour siyaare si ngir siyaare si sëñ Moussa mi ndokkale ko ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañu bokk nun nu daja fi ñun waa kër sëñ Abdou Lahad yëgoowunu sax maa ngi ñëw daje feeg sëñ Seex sëñ Modou ak si loolu lépp li ko indi mooy diggante sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir ak diggante sëñ Moustapha mi ak sëñ Abdou Lahad barki démb laa ci mujj a wax looloo doy na lépp neewoon naa sëñ moom mii ñëw na ci sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Khadir yónni ko mu jóg boo woon ko gannaaw mu ne Moustapha mii de def naa ko nawle daal ni sëti sëriñ bi koo ca xam ne su koy jomba teg sama tànk jomba nga faa teg sa tànk ma def la naw nawle te Moustapha mii ca ñooñee la bokk fan yii rek sedd naa ko muy mbokk moo xam ni ñun ñëpp nañ ko xel sant ko bu baax gërëm ko ci doxin bu rafet bi mag ñi fi nekkoon di suñu wajur yi ñëpp ko joxoon cër dale ko ca suñu soxna bi mi nga xam ne moo fa bokkoon nekk mu jàngal ko dale ko ci sëñ Abdou moom jéggi na dayo sëñ Abdou sax àggoon na ci ni ko sëñ Touba daf maanaam fàggul ci sama biiru xilaafa foofu foofu la mbir mën a yem te sëñ waxoon na ko seereel ko dañ koy ñaanal yàlla mooy fan wu gudd sag la ci sëñ Touba sag la ci yoon sag la ci bokk fan bu gudd lañ lay ñaanal ci barkeb seexul xadim mel na ndog nga bañ koo am ba ak rëkk ni ko sa waajur wa defee ci yoonu sëñ Tuubaa bi siggal ñëpp yàlla la ko yàlla saxal barke sëñ jërëjëf ñaanal ñaanal barke sëñ Abdou Xaadir de moom li seede ginnaaw ay waajuram ñépp dégg nañ ko la sëñ Abdou Aziz ah, da ñëpp dégg nañ ko ku bëgg a gis jaamu yàlla buy dox ci kaw suuf dëkk aljanna te ak ruum taqalikoo jëmmam xoolal sëñ Abdou Xaadir Alaaji Abdou Aziz Si dabaax baax moo ko wax sëñ taxaar seede ko seede yoo xam ni ci wàllu waxtu yu juróom jullit ajjuma fonk sunna ragal yàlla ba du lekk ndax sëñ Abdou Xaadir ni sëñ Tuubaa la toll woon doxinu sëñ Tuubaa it moom la daan dox laabiiruk sëriñ bi moom la moom la laabiir kaddu sëriñ bi moo nekkan ci moom kon nga xam ni bu meññee sëñ Moustapha mii sunu borom dogal sëñ ma ñaaw si la di maamam bis bi demee nii mbooloo mi di ko sëkkatal war nga xam ni loolu war naa mën a ne sëñ Tuubaa dafa wax ni ko sant si la bu seexu di sell ñu ko lu tax mu ni euh, Abbas day seen maam te Abbas day bàyyi bu Rasulullahi sama sama waa ji kon sëñ Moussa laa ndeyoo ci la bàyyoo Mbàkke sëñ Abdou Khadir moo la meññ nag sama yaay si la sant doy na wala sama yaay jaxate la sant wala busa wala daraame wala géy wala njaay wala weneen sant te sëñ Tuubaa ñetti ndab la fi moo ko yatt raxas ko def ci bii fekk nañu yatt ko moo ko raxas def ci doomi soxna yi fekk na leen ñu duy tuuti moo leen la ànd ak ñoom dem sëñ daal maa ngi lay xamal ne boo bëggee sëñ Muntaxa bay woo nga seet ko boo bëggee sëñ Moustapha seetal sëñ Muntaxa benn lanu ñoo bokki xol bokki yéene bokku bëgg bokku laabir bokku tab bokku yërmande sëñ Muntaxa rek laa koy xoolee ndax qualité bu ma gis sëñ Muntaxa ba bëggee ko ko gis naa ko sëñ Moustapha rakkama nag maa ngi ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi téwér li mu mébétal sëñ Tuubaa ñu ànd ko mu liggéey ko njariñ li wesaaroo ci bind fi ñëpp njariñoo ko sallallahu alayhi wa sallam te mooy tansimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li moxlisil maasimi noonu rek la ñuy dundalee màggal gi bi ñu xëyee ñu ñu ngi xëy ci jàng alquran ak xasida boo yéegi fii ci kaw ñuy durs ñëpp ñu ngi foofu ñu toog nii ci jataay bi ñi nga xam ne day ñëw ngir joxe seen addiya tamit fii la ñuy fekk waaye durus alquran ak durus xasida ak bernde loolu mooy ni nga xam ne moom la ñuy dundalee bis bi ànd ak ziyaar yi nga xam ne naka jekk ci yoon wi dañoo baaxoo di ko ziarante ci sunu biir rawatina suñu diggante kilifa yi te di ko def ngir jëmmi ngir jëmmi borom Tuubaa kon daal ci tënk loolu mooy li nga xam ne ci lañ tolla tollagoon fii su ko defee itam nag euh, dundal gi ci sunna nañ ko waxe woon léegi ku ne xam na ne bisi Sëñ Abdou Khadre ci sunna rek lañ ko war a mën a dundalee ndax ak dundam yëpp moom da koo jeexal ci ñaari ñaari tomb yi mooy al istixaamatu ak as sunnatu Sëñ Abdul Xaadir képp koo toog ci kanamam tamit ku ko xam boo tuddee al istixaamatu xelam dem ci Sëñ Abdul Xaadir boo tuddee as sunnatu xelam dem ci Seexuna Sëñ Abdul Xaadir kon nag bésam mënee su ko dundal ci lu loolu mooy lu am solo loo xam ne nag ñun ñëpp war nañ ca doolee góoru ndax koo xam ne indi na loo xam ne taarix xamu ko mooy gën a jamono rek di ràmm loolu ci Sëñ Abdul Xaadir lañ ko njëkk déggee te ba léegi déggaatu ko ci keneen bis bu mel noonu nag jar na nit bàyyi ko fépp fu mën a nekk ci àdduna ngir teewa si ko ngir jot ci ngëneel loolu nga xam ne ak njëgalu suñu borom googu nga xam ne àndaale woon na ko loolu mooy taxawaayu Serigne si Ahmadul Xadim mi toog ab ak moom mboolem li muy liggéeyal Serigne Touba te tànn ngir ànd kook ñoom kon ci tënk noonu mooy ni nga xam ne moom la ñuy dundalee bis waxtu wi nag nodd na ñuy waajal julli tisbaar suñ noppee daa di teewal xéewal yi bu ñëpp xéewla ba noppi ñu delluwaat ci durusum alxuraan ak xasida yi ba jant bi so insha allahu taala ay perantal la ni jooy boo ñu fa leenu ne wooy ku nu yafal ban defi mu dellu naatal xarnu wi ji yaay te noo ku ñàkk yaay day nàmp maam buural tabboot nu ngal la daam rogginu mboolem xërnu wi bal sa doom yi yëpp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi dafa murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo dolli sunnalaal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am di Moussa tabax jumaa yi bam tol ne marwata ak ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem murid yëpp ngi jooy ngir lu ñu bay mu daldi di gooy bu seene diyaa ngi booy sarax nu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiif xiif luñ togg bar ni ko fuuf Cheikh Bamba neel ngeen ji mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tooli booy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 sa dem gi tax na ñépp jooy nawet yi sax dootunu tooy léeg-léeg mu war ba tool gooy waay Mbàkke jeesul xarnu bi waay Mbàkke